ba tax na nag lépp tënku na ci wàccaayu élection législative yi ak euh, ñaxtu gi tàmbalee fës ci géewug euh, politique bi Ziguinchor Ousmane Sonko ak ñamu àndal euh, yene cabinet préfet ba moo aye seen googu lépp ñaxtu mu ngi ci wàll Walf Quotidien yéenekaay bi di la mandat mu ngi dégtal lu waaju ci élection législative yi ñuy waajal euh, fii ci réew mi euh, ndax waxtu wa jotul ñu dàqandi yi la wote ba jëmi jamono euh, ndax waxtu wee ko laajatul ñaxtu yaa ngi baw fu ne coowal liste yi nekkat ne jonn géew politique bi jaax xol yi tàmbalee jóg mu ngi ci le mandat ci xëtam bu euh, njëkk yéen kaay bi di l'observateur ne doxum ñaxtu euh, gu ñu aaye euh, ñu war ko amal fii ci ndakaaru waaye Yewwi Askan Wi yéen kaay bi ne lañ moo ci doon taxawaayu nguur gi maanaam njiitu réew Macky Sall ak fipp goo xamante ne Ousmane Sonko ak ay ñoñam fipp nañ ko ne neex naqari muy taw wala mu naaj daañu wàcc ci mbeddu ndakaaru ñaawlu tolluwaayu réew mi ñaawlu yi tamit li xew ci liste yéene kaab yi euh, moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk li fi xawoon ci weeru mars 2021 euh, ndax euh, dina nuyoo si waatam déet yan matuwaay la ci kilifa yi jël Benno Bokk Yaakaar ak ay ñoñam ñoom taxaw nañu tembe ngir aar réew mi mu ngi ci l'observateur yéen kabi di eh, turbine moom ñuy dégtal protocole bu CEDEAO yéen kabi ne njiitu réew Macky lank na ne eh, du signé eh, la koy xañ ñetteelu mandam doon lu turbine fësal bokk na ci tamit jeexi jaaxa gi askan wi am ci doxalinu njiitu réew mi Macky Sall Mohamed Bazoum bu Niger moom i tamit jàpp ne ànduñu ci troisième mandat nuñ ko bañee ca Nigéria noonu lañ ko bañee fépp ci euh, Afrique Alliance euh, pour la répression contre Yewwi ak askan wi ñoom tamit ne daañu amal ca place de la nation euh, seen euh, toogaanu euh, ñaxtu yéen kaabi di les échos mu ngi dégtal li nga xamante ne mooy libéraux yi waa PDS ne bu kenn ñu woteep waa yeewi askan wi ñoom ñi ngi fàttali ne yàggul dara Ousmane ko jotoon na fee xam le ne waxtu wa jot na ñu fusillé maanaam fetel maître Abdoulaye Wade ñu fi mos jiite réew mi loole nag ba tey doon na góomu xool ci libéraux yi Euh, bu ñu sukkandikoo ci Alinar Ndiaye euh, jàpp ne keroog bu ñu gantalee candidature Karim Wade Ousmane Sonko ak ay ñoñam dañ doon tàccu kon tey ji euh, yeewi askan wi warta diri libéraux yi bëgg a yee fitna ci même réew kenn ci responsable libéraux yi moo ko xamle yéen yi di les écoles tamit mu ngi xamal li nga xamante ne pond mi wuréegul ci ndakaaru lu ne mun na cee am ci ñaxtu ku jeeg politique bi bokk na ci tamit Euh, li xew mooy ñaxtu rek moom mën a sori réew mi bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko ak ay ñoñam Barthélemy Dias moom woote euh, ñëpp génn ci mbeddu Ndakaaru Euh, foo tourné ci ndakaaru gis euh, takk der gu taxaw euh, ngir aar réew mi mu ngi ci les échos yéen kaabi di Vox Populi mu ngi dégtal ajuma joo xamante ne tiitange la gu gane si ndakaaru ak Ziguinchor ku ne war naa mun a tiit ci bile ajuma ndax lu ne mun na cee xew lu ko dalee Dakar ak Ziguinchor Euh, géopolitique bi euh, ñaxtu rawatina waa Yewwi ak waa Wallu yéen a cabinet ci wàllu kaaraange ci Ndakaaru euh, biig daanaka fépp foo tourné gis fa takk der gu taxaw yéen a ñu fàttali ne googule doxum ñaxtu ak toogaanu ñaxtu dañ ko aaye préfet bu Dakar moo ko aaye waaye nag Barthélemy Dias ak Guy Marius Sagna ne xel xalaatu ñu deltu euh, ginnaaw yéen kaa bi mu ngi ñuy fàttali Moustapha Niass yëkkati na ay kàddu dikkaat na ci appelu 16 juin 16 juin ba woon waaye nag ci Vox Populi ñu ngi seen euh, lawbe yeeg géwél yeeg ñeeño yi euh, sàkku nañu ci Ousmane Sonko mu jégalu leen publiquement ndax Sonko moo xam ne géwél walla boog ñeeñoo ko lawbe warta am alal warta doon milliardaire loole nag doon lu leen metti lool Euh, lu aju ci protocole euh, bi nga xamante ne war naa mën a gantal mandat njiitu réew Macky Sall mu war ca bañ a sóobu troisième mandat. Euh, protocole bu CEDEAO googu la njiitu réew Macky Sall def ko soofantal bu ñu sukkandikoo ci docteur Cheikh Tidiane euh, Dièye mu ngi ci euh, Vox Populi waa INACOI yeesal sàkku nañu ci way politique yi ñu jiital intérêt réew mi jàpp ne réewum Sénégal du politique rek moo fi ne nañu gëstu koomub Sénégal yéen a kaabi di le yéen a kaabi di Sud Quotidien mu ngi dektal ajuma au risque ajuma joo xamante ne lu ne mën na caa tab bi opposition bi fas yéene yëglu ku jekk politique bi yëngu-yëngal amal fii ci Ndakaaru euh, toogaanu ñaxtu gañu ne dañ ko amal ci place de la nation euh, doxum ñaxtu lañu ñu diggee ca Ziguinchor lépp ngir addu ci coow li ne cobboy ci liste yeeg wàccaay élection législative yi yéen kaabi di critique ne fippu gi mu ngi ci place de l'Obélisque Euh, ñeel euh, waa Yewwi Askan Wi ak waa Wàllu Sénégal ak seen i ñooñ ne daañu wàcc ci mbedd mi Alla Dieng bu Inakwa Yeesal euh, nee nañu xam ne réewum Sénégal du way politique yi ñoo ko moom société civile yi tamit sàkku dal ci mim réew yéen cabinet préfet bu Ziguinchor bokk na ci li préfet bu Ndakaaru sàkku moom la jota daganal ca Ziguinchor ñoom ñëpp ay nañu ñaxtu Euh, ci euh, réew mi ndax ñu ngi ci pré campagne ak code électoral bi moo ko santaaneetul euh, jigéenu yeewi askan wi ñoom ne taxaw nañu tembe ngir tàccu njiit réew mi Macky Sall ñetti tàccu yañ ko digg bu ñu sukkandikoo ci soxna ay Mbodj mi ko xamle. yéen kaa bi di laas mu ngi dégtal doxum eh, ñaxtu gañu eh, aaye fii ci ndakaaru waaye Yewwi Askan Wi ne neex na xari duñ ci deltu ginnaaw xel xalaatul eh, ñu yox yox yi ne dañ ko amal Dakar mu ngi ci guddi gu bër setagul laas moo ñu ko yëggee ci euh, xëtam bu euh, njëkk l'évidence ñu ngi koy seen dikkaat na ci ñaxtu waaye wi askan wi euh, bu fekkee ne sax dañ ko tere dañ ko aaye ci ndakaaru ak ajjuma joo xamante ne lu ne mun na caa tàbbi vendredi de tous les dangers yéen kabi di l'évidence xëy duñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéen kabi di enquête mu ngi ñuy degtal manifeste yi ñaxtu yi nga xamante ne moom la yeewi askan wi Euh, diggee ne pare nañu ngir jàmmarloog euh, nguurug euh, Macky Sall yéen cabinet ndax dañ ci mucc ci àjjuma tey ji àjjuma joo xamante ne lu ne mun na ca am société civile ñoom ñu ngi ci médiation ñu ngi ci dox tànk jàmm yéen cabinet nag fépp ci ndakaaru foo tourné gis tàkk der gu taxaw ne du ñu seetaan mukk ñuy màbbal wala boog di taal mim réew daañu aar askan bi ak seen i moomeel Euh, mu ngi ci enquête euh, yéenekaay bi di euh, réew mi quotidien mu ngi dektal manifestation bu ñu aaye aaye nañ ko waa Yewwi ne war ñu ko fee amal bu ñu sukkandikoo ci gouverneur ak préfet bokk na ci tamit Jean-Marie François Biagui dal na ci procureur mi mu ne bu den kenn dugal bu den kenn dugal ci mbirum politique ak yeneen ak yeneen yéenekaay bi ne ndax laaj laaj laaj gi samp mooy ndax du ñu émeute ya woon fitna ga woon ci weeru mars 2021 ndax daañ ko dunaat ci àjjuma tey jii am déet laaj la gu samp point d'interrogation gàngoogu ci réew mi euh, quotidien yéen a kaabidi le vrai journal moom ñu dégtal ñetti ñi le Ousmane Sonko Euh, Maham Diallo ak euh, Amady Diouf di procureur yéen cabinet kenn ku nekk am na foo teg sa tànk ne doo ko teggi mu ngi ci le euh, vrai journal yéen cabinet di direct news ñaxtu goo xamante ne mun na law ba ca Ziguinchor noonu la ko yéen cabinet bi xamle bu weesoo Ndakaaru Ousmane Sonko ak ay ñoñam ne daañu yëglu fii ci Ndakaaru ñaxtu kii di Guy Marius Sagna ca Ziguinchor gamu ne ne kenn du dem ñu des euh, dañu wone seen ñàkk ànd ci doxalinu njiitu réew mi euh, Macky Sall ak euh, nguuram yéenekaay bi di le quotidien ndaje mu yaatu joo xamante ne dañ ko aaye sax marché goo xamante ne waaye Yewwi Askan Wi bëgg nañ ko amal fii ci euh, Ndakaaru euh, société civile moom euh, ñu ngi sàkku jàmm am ci mim réew nañu jiital jàmm waxee ko doxee ko bu ñu sukkandikoo ci càkkuteefu société civile yéenekaay bi di l'info ne ak lu munta am ñëpp am nañ ci wàll ci li mun a tàbbi ëllëg ci réew réewum Sénégal moo xam way politique yi moo xam yi tamit euh, société civile bi ak euh, ñeneen ak ñeneen ndax réew mi tey am na ñoo xamante ne euh, ñu ngi wal taal ngir bu koy tamit jafal safara seek yeneen ak yeneen am na ñoo xamante ne tamit jël nañu seen brin almet ba noppi ngir bëgg a taal réew mi yéene cabinet ña ci ñëpp jël seen responsabilité ndax ab lépp lu mun a am kenn du ci mucc mu ngi ci l'info mu ngi ci xëtu njëkku yéene cabinet ci 24 heures ci xëtam bu njëkk élection législative yu fanweeri fan ak benn ci weeru sulet 2022 yéen ne ndax am na ku mun a dalal euh, fitna gi ne cob booy ci géeg politique bi moom la yéen bi bëgg a xam ndax euh, nguur gi taxaw na temb ne dañu dem ci élection waa Yewwi Askan Wi ne xel xalaatul ñu soobu ci élection bu fekkee ne seen liste euh, bokk ca ba tax na yëf yi tar lool ñaxtu yi bawu fu ne Jean-Marie François Biagui moom ñaawlu na kàddu yi tukkee ci procureur Amady Diouf ne MFDC mosta jege te mosta bokk ci ndajeb ñaxtu waaye Yewwi Askan askan wi euh, niki ñetti ñekki ñetti fa juróom-ñetti fan ci juin euh, gi ñu euh, nekk mu ngi ci 24 heures yéen a bi di source a mën ñuy dégtal ñaxtuwaay Yewwi Askan Wi ak waa wàllu Sénégal corps à corps jàkkaarloo ca place de la nation yéen a bi ne tey bésub cooki la ci waxin mu ngi ci yéen a bi di source a gannaaw bi Ousmane Sonko ak ay ñoñam taxawee ne fa ñu samp seen tànk kenn du ko fa jëlee daañu amal te ndefalu ñaxtu. Euh, fii ci euh, xolu Ndakaaru ca place de la nation euh, fale ca Ziguinchor yi tamit dañ fa yëglu bokk na ci tamit way takk der yi taxaw nañu tembe ngir aar réew mi ak seeni moomeel yéen kaabi di Le Soleil njëg yeeg yokkute yi ci am ci wàllu gasoil geek essence beeg courant bi nguur geek matuwaay mu jël ngir itamit loole bañ a dol lu lor askan bi ak lu toll ci ñetti téeméeri milliards yoo xamante ne subvention la Eh, ngir eh, mun a eh, téyandi yooyu la njëgg yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi di Libération mu ñuy degtal mbirum tout tànk gu toll ci yi at te ñu fekk ko mu faatu ca Sébikotane la xew ca faatu gàkk nañ ko rende enquête bak la mu jot a wone Libération xëy duñu ko degtal ci xëtam bu njëkk yéen kaa bi di eh, stade mu ngi degtal eh, Papis eh, Cissé bokk na ci meilleur buteur ci wàllu sélection ñaa ak Sadio Mané yéen kaa bi dikkaat na ci ñetti kàngam yoo xamante ne daanaka fësal nañu seen bopp ci équipe nationale yéen kaa bi di suñu làmb franc mi nga xamante ne jot naa mal maanaam jano ak askan bi open press jàpp na yi tamit. Euh, sox day sóob ndax sox moo xam xamle keroog mais euh, franc du cent franc franc ci boppam euh, tontu na ko xam ne ne daal coolee bari waaye sox day dangay sóob mangoog ñaari mbër yaa ngi jokkalante kàddu laata ñu leen di géewal lu ci kanam réew di gët ci seeni combat yu nag fu ñuy jeexale xetu yéene kaay ci baatu askan wi mbokk lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na ci xibaar jaajëfal sax Diagne mi ne woon ci machine bi fegook ajaratu Penda Diallo Guèye mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendoo ak jàmm ak programme Walfadjri ñu leen di xamal ne baatu askan wi incha allah dina leen toppal bépp information gaytukee ci doxum ñaxtoog yeneen ak yeneen lay xew ci Ndakaaru ak Ziguinchor dara du leen ci ump ci leeru jamono yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi ñu yendoo ak jàmm. thank you